mbokk internet Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar la ca gën a fës nag bokk na ca coow li na cob bay daggantey saaga daggantey arrêt ma am nag ci ndaje mi nga xamante ne bii ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ko doon amal foo ci seen siège su APR boobale niki noonu nag ki nga xamante ni bi moo di euh, premier ministre Amadou Ba ak ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Diouf Sarr Mbaye Ndiaye ak ñoom ñooñu ñëpp Abdou Karim Fofana ginnaaw bi nu dajee nag di xool li nga xamante ne bi moo di wàllum candidature bi ba Abdoulaye Diouf Sarr nag yëkkee ay kàddu daan ne nag fii ci Dakar amagoon nan fi ñaari candidat ki nga xamante ne moo di Amadou Ba nag daal ne ko man nag génnee ma ci candidat yi ndaxte man bokkuma ci loolee nag ba mu amee ñooñu amadu Ba ñi nag daal di bëgg nag ki nga moo di Amadou Ba daal di nekk candidat loolee nag daal di indi nag coow foofee ca saal boobee daggante araya ñoom ñi nga xamante ne bi nag ñoo waral mbaboor ma nag daal di yollee ko roccee dugg ca seeni oto daal di dellu ñibbi ndax li nga xamante ne bi nag moo nekkoon uh, conférence boobee daal di tas ca sensé kenn ku ne nag xool foo xamante ne bi fa nga mën a bay sa bopp ko loolu nag moo am foofee ca siège waa APR ñi ginnaaw bi nga xamante ni nag tey ñu ngi doon def seen noppam ndaje eh, ba ab Diouf Sarr yekkee kàddu nag jëmale ko ci candidature boobee la saal ba daal di mujj nag wéet ba ne wëyëng ñëpp nag daal di mujj kenn ku nekk daal di dellu fa nga jóge woon ngir coow li nga xamante ne bi amoon na foofee ak xeex bi nga xamante ne bi ñu ngi ko doon nemmee ko ca saal ba